bay Cheikh ak njabootam ga weeru koor bul ko wuute bay Cheikh ak njabootam ga weeru koor bul ko wuute bay Cheikh ak njabootam ga weeru koor bul ko wuute bay Cheikh ak njabootam ga weeru koor bul ko wuute di nga reetaan te jàng ca sukkaru koor wuute ko warul bay Cheikh njaboot am ga weeru koor bul ko nggak sampah. Ah, hehehe, lu sant bu ne wele xaasim ki yow la yow yaa war a toog nii def sa table bu am jom togg ndéeg eh xaas la moo tax nga ñàkk jom yow sa jom fan la féete ci yow ak sa ngor ak sa dignité kooku ŋaamam yu jeex boppam benn fa ay kañ a jaar yow ya war a toog ci kóor maam yaa nga ngay gis nga yow xam nga luma lay yow mari man duma sab morom sa rewande gi ngay def boo ko dama lay duma ci kër gi la la wax rew nga top man duma sab morom sa magla eh eh eh, li ma eh, wax dégg li ma la wax eh. man dama lay duma la la wax ma la gëna rew fu dama lay duma legi eh c'est à toi que je parle non li mooy lan xana du yow lay waxal su may wax doo eh, xoolal su may wax yow tamit quand même ok d'accord d'accord mère d'accord naa d'accord naa d'accord naa mais yaay booy na nga wax ak Marie parce que man ma moroomam grand frère am la ñi muy génn ci biti di leen respecté ñooñu buñ ma gisee dañ may raamal na ma respecté lan mooy yoonam ci bu ma wóoree ak bu ma wóorul muy taxaw ak man en tant que grand frère am nan ma ay da nga ñàkk jom eh tu baisses le ton ok d'accord d'accord mère tu baisses le ton quand tu parles avec moi ok d'accord eh yow Marie lan la yow avocat à cour nga wala lan la wala léegi yow kooru jàmbur yi dañ la ko jox léegi pour nga koy recenser li mooy lan yéen lan moo tax léegi ngeen am fit xamoo leen ku leen mag xamoo leen kuy seen rakk mari lan moo si sa yoon ci kooru jàmbur et bu ma fonton may dégg léegi léegi ëppal nga de dalul fi nga jógee woon maayi bala maa dem ci gis nga yow le respect réciproque respect donc yelloo rek ñu delloo la ko dama la ngaa ñàkk jom man la kii nga wax ak moom koor gi mënu déj di ndékki ñàkk jom Marie xam nga kii dafa réew Marie que ça soit la dernière fois yow la yow la ruus mais kii kon dama koy duma yow laa xamul lu ma lay def mais bu dul woon teg paa bi kii dama koy duma dama koy nàccal tey Xaasim eh, dafa réew eh, xam nga lan la yow tamit kenn du yow hmm. yow comment tu tu peux te permettre di toog fii di ndekki yow tamit pare ah, weeru koor bi ñëpp a ngi yow au moins nga suturaal sa bopp soo bëggee ndekki tu peux pas entrer dans le salon ah, yow ma yow xam nga sama maladie et après man xam naa ko mais bu nit ñëwee lan lay wax fi mu toll ni am na loo xam ne yow yaa ko war a bañ yow tamit ah ayca yi ngay def dafa am loo xam te ne yow yaa ko war a daw ayca ñëw ci biir salon bi nga ndékki oh c'est très tôt là ak yooyu man man yooyu daf maa intéressé man maa moom sama koor xam naa lu ma attan ak lu ma attanul fii laay toog fii laa koy dékkee ku ñëw fekk ma fii nëbbatu moo yàlla di nëbbatu nit sama jàngoro man la man la concerné dinaa ko duma de dinaa ko duma salaamaaleykum salaamaaleykum waa xanaa fi kenn newu fi maaleykum salaam waa aram noo def maa ngi nii rek ça va sama fóot bi laa jël si woon de fóot mi waaw fóot mi de fóotaguma ko i wooy ndew sàmba fóotagoo ko aram bala jëlee fóot bi bi ba léegi fan yëpp sama yaram dafa xaw a naqari waa aram man sa yaram naqari du sama yoon maa la gën a feebar yow sama programme léegi nan laay def sama yére yëpp daj na nga naa ma fóotaguma ko foo ko teg bu subaa naa ko fóot man xaaru may suba de dàqoo maa fóot am yërmande ci yow dong ak ñeewantal moo tax ma jox sama yére delloo ma sama yére waaye kii yëbaate na de naan jënd ni sama kanam naa ma fóotaguma ko delloo ma sama yëf gis nga soxna si yii ngay wax yëpp mutu ko man damaa woor te wéruma soo bëggee nga bàyyi fi sa fóot mi su ma xëyee suba dinaa ko fóot soo bëggul ma delloo la sa fóot mi dama lay laaj yow kan moo woorul maa la gën a woor bu ma solal te wéeru ma te maa ngi woor delloo ma sama yëf bu dee feebar maa la gën a feebar yow bi ku yabaate nga waay yow nii la ñuy def boo leen yërëmee rek bu ñu la miinee daal di lay yeb ah waay yow kii kon yow arab mi yow bon nga de léegi sama sama sama avance ma joxe woon na soxna si bu may ni benn problème waaye man damaa woor te damaa sonn wax nga dëgg de man maa wooru man magum jëm bu tali man maa maa tooñ sama bopp man fekk ku ñëpp bàyyi yéen a ba leen nit ñi miinee rek ngeen wute seen jikko

ma néew doole lool may sàkku lu ma ndogoo rek li laay war a suuli rek boo amee dara rek nga may ma ma yóbbu kër ga ndax njaboot gaa ngay toog di ma xaar te dërëm yoruma ko fi mu ne nii maa ngi sàkku ñaan maa ngi sàkku ndimbal daal te nii daal moom fi ne dërëm yoruma ko loo am rek nga dimbalee ma ko rek te yàlla rek tax ngir yàlla ak weeru koor bi. waaw ko benn allah baax nga baal baal naa la yàlla na yàlla boole baal amiin amiin amiin amiin bu ay déwén yu bari bari xàmmee ci suñu jàkka ji ak suñu jumaa ji xàmme naa waaw ma bëggoon rek am ñu baaxante ndax jullit ak moromam dafa am ñu war a kenn ne bal ngaa laayee biir sa morom mhm. seetlu naa ni saa bu ñu sëlmalee julli baloon bare sax nga ni ñokki jub di wax si mbiri kër ak di wax si mbiri yaram ak man Saalum laa jóge woon ak ñëw fi yooyu nga baal ma ne jëru ko yelwaan du tax aussi nga ñàkk sa dignité yooyu xew si kër yëpp ak ci sa yaram mën naa ñàkk mais fi sabilillah ngir yàlla mais ngir yàlla ku mu doyul pour sarax la dara du ko doy ndax lim lay jox yow taxoo yàllaa tax te ñàkku situation la rek ëpp liw ma te ndax am nga loo am lu ma amut biddaay ci baatin peut-être am nga loo am lu ma amut mais weer gi ngay weer sa bopp ngeen ma baal ma nag weer gi ngay weer sa bopp ci jàkk ji jumaa ji def rédaction boo xamante ni kenn xamul fu mu jógee jër ma ko ngir yàlla rek ah ñun ñëpp ngir yàlla doy wat ko ngir yàlla ku doy dara dootu la doy hmm. diyal waan taxutu nga ñàkk dignité maa ngi jégalu nag. waaw ah, jégalu naa jégalu bu baax a ngi Baye Cheikh ak njabootam ga weeru koor bul ko wuute Baye Cheikh ak njabootam ga weeru koor bul ko wuute yow Baye Cheikh ak njabootam ga weeru koor bul ko wuute yow Baye Cheikh ak njabootam ga weeru koor bul ko wuute yow di nga reetaan te jàng ca sukkaru koor wuute ko warul